mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen waa Mouhalim info yëpp ñu ngi leen nuyu di leen bal xaq di leen baal di ñaan suñu borom defal ñu jàmm defal ñu ay xéewal nangul suñu jàmm yàlla ci weeru koor bi nga xamante ni moom lañu nekk di leen ñaanal bu baax a baax a baax a baax suñu borom gën leen a taxaw gën leen a aar di tamit waa Mouhalim 1 2 3 4 ba 5 ak waa Facebook ak waa euh, YouTube yëpp ñu ngi leen di ziar wér wér wér di leen fàttali rek seen jataay bi nga xamante ni moom lañ leen daan defal chaque euh, mardi talaata bu jot incha allah mu tudd ndax xam ngeen ni ndax xam ngeen ni seen mbokk Cheikh Nafa di leen ko defal ànd ak ceeg Serigne Khadim Thiam ca wet ga. ci wàllu wàccaay gaay yëpp ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax euh, di leen wax ni tey ndax xam ngeen ni dañ ko dajale yëpp rek boole ko ci benn benn benn bàyyi wala benn mala wala benn mbindeef moo xamante ni ci mbindeef yi suñ borom yi la bokk muy nag loo xamante ni lu bari ay secret la muy koo xamante ni ku ku ku ku kiimtaan ku am kiimtaan la wala ku kiimaan la kooku mooy kan waaw kooku mooy kan danañ ci ñëw léegi ci kanam incha allah mbokk yi euh, mbokk yi e, ñu ñëw ci seen jataayu ndax xam ngeen kon mbokk yi ndax xam ngeen ni xorondom mooy sël mbindeef wala mën nañu wax ni mooy ki ëpp doole ci àddina bi ndax xam ngeen ni xorondom mooy ki ëpp doole ci àddina bu ñu doole nag mooy ci mbindeef yi gisaguñ ci koo xamante ni mën naa Eh, yanu téeméer waaye mën naa yanu juróom fukkam juróom fukki poids maanaam comme nit di peser cinquante kilos mu mën a yëkkati eh, juróom fukki saaku ceeb yoo xamante ne cinquante kilos la loolu gisaguñ ko ci mennum xorondom mii nii lañ ko gisee kon xorondom ndax xam ngeen ni attan na juróom fukk lu ni moom mbokk yi mbokk yi ginnaaw loolu tamit ñu leen di laaj mm, ci ba ndax xam ngeen ni mbokk yi ndax xam ngeen ni xorondoom bu góor xorondoom bu góor maanaam rapport sexuel kese mooy yitteem bu ko defee bu amee une semaine gën gaa bari day daal di faatu maanaam moom day judd def ay rapport am daal di faatu ndeysaan ay waay ndaw mbokk ndax xam ngeen ni xorondoom mooy ki gën a mën a organiser wala bokk na ci ñi gën a mën a organiser dañ ko bañ ba Euh, dafa am ñetti façon xorondoom yu ñuy wax benn bi mooy buur bi keneen ki si des mooy aji liggéey ji keneen ki si des mooy góor ki bu góor ki ñëwee def ay rapport am am ci doom moo ku jigéen ki bañ am ba mu kii euh, nu ñu koy waxee bu jigéen bu ñëwee ku góor ki dafay def rapport beneen góor ñëw def rapport beneen góor def rapport mu dajale rapport yu bëri yooyu noonu daal di koy nen bu ko nenee nag moom moom loolu rek mooy liggéeyam nen kese mooy liggéeyam bu nenee nag après. ba nen yi war a dafay daal di dem ci beneen gox maanaam dafay sañ ci beneen kër juge foofu bàyyi leen fa léegi nag am ci boo xamante ni moom liggéey kese mooy njariñam maanaam jëli dugub dikk indi jëli lekk indi di dundal ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di tabax kër yi di setal foofu yëpp nettoyé ko loolu mooy liggéeyam bu góor bi moom sëy rek mooy liggéeyam loolu Euh, organisation la boo xamante ni bu mucc ayib la kenn ku nekk ak la nga war a def te doo ci gis dara loolu mën nañ ci dégg ni maanaam mbooloo muy ànd wala lu lu ñuy organiser mbir bu ñëwee kii nii yaa féetewoo ca duus ba kooku na jàpp ni féete ga mu féete ca duus ba mooy jagal bis ba kii bu ñëwee ko yow kat yaa féete ci bunt ba na jàpp ni bunt ba dama fa féete moom mooy jagal bis ba gis nga kii nii kii pourtant jigéen la maanaam kii def kii féetewoo wàllu liggéey gii nii ci ñoom maanaam jigéen lay doon mais jigéen gi wàllu rapport yooyu xelam du ci nekk sax fa yéene wu koo def parce que loolu du liggéeyam liggéey mooy dundal leen te du ca dara kon euh, ci gàttal ci kaw nii kon loolu euh, lu su mën a jàngate ci ñoom ak seen euh, seen seen seen seen seen àndandoo ak seen seen seen manko waaw mbokk yi ndax xamoon ngeen ni. xarondom ci boppam e, dana dund fanweeri at ndax xamoon ngeen ni xorondom dana dund fanweeri at bokk yi xorondom bu jigéen bi nga xamante ni moom la wax ni mooy buur bi nga xamante ni kooku nen rek mooy liggéeyam kooku dafay dund ba fanweeri at mais nag bu dee bi nga xamante ni moom liggéey rek mooy métier am kooku danay dund gën gaa bari ay weer ki nga xamante ni moom mooy Euh, bu góor bi nga xamante ni sëy rek mooy liggéeyam kooku dafay dund gën gaa bari juróom-ñaari fan comme ni nga xamante ni noonu dañ leen ko waxee léegi nii waaw euh, mbokk yi euh, ndax xam ngeen ni ba tey ni alquran dafa tudd maanaam dafa am saar woo xamante ni daf ko tudde xorondom boobu muy sorut nam ndax xam ngeen ni tamit mbokk yi ni xorondom dafa nekk loo xamante ni suñu borom daf ci def ay secret te bokk na ci li gën a a maye bayre moom suufu xorondom soosu noonu euh, ak lañ cay boolee ci xorom ak ay ñoom sukkar ñoom seen bokk na ci ñiy jëfandikoo wàllu asraar xam nañ loolu noonu nii dafay mare maye bayre boo xamante ni bu kiimtaan la mbokk yi fi ñuy daanelee rek ak yéen ndax dañu nekk ci weeru koor du ñàkk xat-xat ya yooyu noonu xëy na du gudd te commentaire yi du ko tax a gudd loolu noonu mbokk yi ndax déggoon génn wala xamoon ngeen eh, xissa bi nga xamante ni dañ koy nettali ci diggante xorondom ak ñay ñay dafa fekk ci bi dafa dikk ci kër xorondom bi jéggte leen xorondom yi baree bari dee ci ñu yàq seen kër yi benn xorondom taxaw ni ko ee eh, ñay ee eh, ñay ñay ko mu daw ba ca kanamam ni ko ee ñay xanaa dégguloo ma ñëy gees ko wala jëy xool ko ni ko yee eh, xorondom looy wax ak sa tuutaay bii nii mu ni ko yow suñ kër yi nii nga jaxase yàqate ko rey ci ñun xanaa gisoo ko mu ni ko boo fii dee def def lu sax moo tourné waat defaat comme li ma defoon xorondom mer yéeg ci kawam dugg ci nopp bi waaw non daf ne ko boo ko waxatee ma def la loo xamante ni da nga ko réccu dootoo ko defate ci kaw suuf Euh, ñay delluwaat waxaat la mu waxoon xorondom bi yéeg ci kaw dugg ci nopp bi bi mu duggee ci nopp bi ñay wi yuux yuuxu yeneen xorondom yëpp tamit defaat ci yeneen ñay yi àndoon ak ñoom yuuxu bi xorondom bi génnee nopp bi ñay dafa préféré jóge foofu yooyu yëpp sax nga xamante ni dafa leen a sori dànd leen bu sore sore sore sori mais teg ci tamit dikk waxtaan xorondom ni ko est-ce que doo bàyyi ma lay jox sa dund gi ngay dundee yëpp bu ko defee ngay toog rek yow doo def dara xam nga lan la ko xorondom yi tom mbokk yi daf ni ko bëgguma di sukkandiku ci kenn ndax bu may sukkandikoo ci yow kon dafay mel ni man euh, daf maanaam loolu dafa may yóbbu ci ñàkk jom te it sama dund bëgguma di ko wékku ci kenn dama bëgg di ñafeel sama bopp mbokk yi loolu ab bind la boo xamante ni mënees na see jàngat lu rëy rëy rëy rëy kan ni eh, loolu xorondoom daf noonu ba nga xamante ni bëggul di basé wu ci kenn dafa bëgg di defal boppam di ñaqal boppam kon rawatina doomu aadama bi nga xamante ni suñu borom daf ko kàttanal may ko xel mu moyul xorondoom moom noonu kon ñi ngi leen di jaajëfal di leen wax di daje ci seen jataay bi nga xamante ni moom lañ tuddee ndax xam ngeen di jaajëfal waa Mouhalim bi yëpp rek eh, rawatina Serigne Xaadim Thiam yi nga xamante ni moom moo eh, kay coordonné mbokk yi seen bopp Cheikhouna Fall la woon jërë ngeen jëf